le centre du peuple mm. le choix du peuple ah. kooku tey euh, moo war a tëgg fii ci kanam mm-hmm. te xam nga ne sànq laa jóge këram mm-hmm. mu def anniversaire bu doy waar bu xeere mm-hmm. ànd ko nga première dame boole patak organisé jàpp njàmbar bay bëgg dee li ma gën a neex ci anniversaire mooy ñëpp dañoo ñëw sol tout blanc kenn du mariage may sa digge ku woote woon keneen ku dul loolu moom xam jërëjëf ok ok mais mais sëñ lan moo waral jékki-jékki rek bàyyi di ñëw ci yi non yow tamit xoolal fi dama nekk beneen niveau sama niveau dafa gën a yéeg ah boo may laaj dag may yaa ngi may tiital sax ah wax dëgg yàlla non dëgg vraiment fi benn wax laaj ma ci waykat bu mag bi hmm. i maar yaa si may sa bigga maar moo fi nekk déet déet te parce que yaa ma waxoon na ma si dee fii la ko wax boo amee vidéo ah. sa nit non ni sa nga xam ne mënut a feesal Sorano mënoo feesal euh, sax du duudu yow naan di laaj ay jeunes tam sa waay ci loo xamante ni man te du ma rusloo ok ok mais ñenn ñi nee nañ yéen da ngeen a bëgg a nëbb micro Sidy bi moo tax ngeen di génne ay micro jamaa seen micro bi du jamaa non Maria Sidy moom li muy tàkk sax jamaa la wax dëgg yàlla parce que <laughs> kooku du gone kenn kooku jamaa ko bëgg ak koor moo ko wuy si hmm. leen euh, Maria Sidy mooy sa biige maar kooku mooy jawfal fara yàpp neex na ginaar neex na lépp neex na mais moom mooy jawfal moom boo ko dajee boo ko jàppee lépp ngay am gisoo bu ma nekkee ci moom ba léegi dama commencé belli di naay yi eh. wërsëg di gën a yokk xéwal gi di gën a yokk ba nga nekkee fee wërsëg amutoon mooy koo xamante ni nekkul ne yow yaa koy jëriñ moo lay jëriñ doolay mariage xajul ci kenn tax naa leen bala ngeen a xam Wally Ballago Seck nga ànd ak moom ndeke génn Sénégal hmm. man keroog bu ma demee Guinée damaa waaru ci lan ni ko dèjà président Doumbouya def hmm. boole ko ay garde rapproché gars yi GIGN ñu wër ko ma ne déeta waay bi mu waree dem tëgg soirée bi ay motard ñoo ko dar hmm. mu doon lu doy waar lu yéeme Guinée yi koo taxaw wax mu na la waali waali waali waali waali man dama yéem parce que waali ñëpp xam nañ ne Guinée artistes yi nañ fa xam ñaar te ñaar ñëpp jigéen nañ muy kan Titi parce que Titi fa la nekkoon. Titi Youssou Ndour fa la ko jëlee. ak Viviane Ndour dëkkoon na bu Guinée Conakry donc Wally Ballago Seck bu imposé boppam en Afrique au niveau international ba mën a bokk ci Guinéens yi. non kon nga xam ne kooku c'est la superstar kooku du moroom kenn mooy bàyyi ñëpp mooy seen bàyyi nan noppul nan lem seen mbir dajale ko jox ko waale balaa ko seet mariage ni laa jox li nga xam ne moom mooy cinq la dëgg la loolu dafa am te Guinée bi may ah, dem non maa paasal sama bopp parce que man Guinée man maa fa yóbbu sama bopp man kenn woowu ma ci waale man maa woo sama bopp maa bëgg a dem dem parce que li ma leen ko waxee rek ñëppay ñëw ak foo mën a nekk ñëpp waale balaa ko sekk na ñuy wër bi ma bëggee dem ma gis Omoro waxtaan euh, Pascal ci lépp ci Pascal la dooree mu rax taxal sama diggante ak Omoro ba mu neex macha allah euh, ma kontaan ci am ci confiance di sant premier ministre bu baax. deuxièmement bi Armand Ndiaye ci boppam ne ma Guinée bi fexeel nga saf di saaf ma ne ko ah ma waaw ci laa jàppee yoon bi may jàpp yoon Malick Naar jëkkëru Amina Poté yëkkati 500000 may ma ko jodi ma ne déetawaay ma dagg sama billet. bi may dagg sama biir ma waxtaan ceeg papito xaritu yaam papito yëkkati cent cinquante mille jox ma ma dagg biir ba ma xëyee àjjuma ma muy ñaata un million moom sama poos ak sama ak momo chéri neesu jox ma xaalis samay nit ñu baax teral ma kon man su ma toppee mariage mariage du xaalis parce que ñëpp xam ne ne samay nit may taxal sama diggante ak Omaro ba mu neex macha allah euh, ma kontaan ci am ci confiance di sant premier ministre bu baax deuxièmement bi Armand Ndiaye ci ma bi fexeel nga ah, waaw ci laa jàppee yoon bi may jàpp yoon Malick Naar jëkkëru Amina Poté yëkkati cinq cent mille may ma ko jeudi ma ne déeta ma dagg sama ma waxtaan ceeg Papito xarit yaan Papito yëkkati cent cinquante mille jox ma ma ne may teral rek man ñi tusoo bis mun moo ko jox mais mais ñiy wax naan sëñ Bada xaalis moo ko fa yóbbu non du xaalis bu doon bu doon xaalis la kon ma toog parce que kuy dem kuy dem yor deux millions et quelque doo dem dama bëgg a baali mariage am comme ni ko ñëpp baalee ma dem baali ko. ok ok mais mais mais mais démb ñu bëri ñu naan sëñ Bada duggul foofu lu lu est ce nga ñu indi leeral ci loolu nee nañ dañ laa téye ci porte waaw xam nga loolu tey jii Wally Ballago Seck ak staffam staffam la. Vogue mm-hmm. dafa yor staff boppam. donc boo ñëwee nit ñi. Mm-hmm. bu euh, bu ñu la xamul miinuñu la wala donte xam na la sax mais dafa am règlement règlement bu nekk foofu donc il faut staff Wally Ballago Seck rek boo mën a ñëw daal lay dugal lool loolu rek moo nekk ah. daal bi amul leneen ah, sa règlement de compte ak Ndeye Gueye Démb fii naka nga dundee loolu mu xeex ak yow il paraît ma dat <laughs> nangu sa scène d'après vidéo yi xaalis ah waaw daf ma dóor dóor yi métti la ma génnal goon goon la ma génnal démb ah bon waaw goon la ma génnal ma wàcc léegi yow boobu la génnee gun nga wàcc. ma jébalu nga jébalu. waaw est-ce que maa ko tooñ mais xam nga rek mbéygee yi tamit. mais ba léegi dafa mer quoi. Mm. mais sama xarit mbéygee daal sama yaay parce que mbéygee nit ku baax la yéen mm. ne man tuuram laa parce que mbéygee bu leen fàtte ne. moo créé Ouzin Kay Ouzin nii Ouzin dof bii nga xam ne démb moom dafa ñëw moom lan dëkk bloqué moom moo ko créé parce que Ousin bi ko kenn xamul kenn bugg ko Ndeye Gueye moo daan dem di tëgg ay tànn béer ki fuural daan ko jël di ko gàtt di ko yóbbaale noonu la demee Ndeye Gueye ñun ay tuuram lan mhm. loolu la demee rek waa léegi wuy ma waaw fu mu ne nii bokk nga mais sa digganteeg Matar Diop suba tel sa waay la sa lépp la nga xëy rek bàyyi ko nii dem ci waali mbaa léegi seen relation dina mel nu meloon non xam nga tey jii boo may laaj dag may laaj koo xam te nii ki ne taxaw carrément ne bu ma tudd turam kooku ma droit tudd turam ah loolu la wax waaw bu ma woo waaw o oh, nga. est-ce que yàqu relation bi kon. non man yàqu ma relation am naa droit dem fu ma neex. ñu may baalee Waly. noonu laay baalee Momo Dieng noonu laay baalee Ibrahima mhm. noonu laay baalee ay Thiat Seck ak Mandiaye ñëpp artistes yëpp man fépp laay dem kenn mënu téye ma dem fenn waxoon naa leen ko nee man dem Guinée moo ma gënal dem Zénith ah. ànd ak mariage dem Guinée moo ma gënal ànd ak keneen dem Zénith te bu leen fàtte ne mariage ñu ngi ciy bis boo xam ne le ñu ngi koy euh, euh, boobu ñenn ñi ngi jàpp ne waa le fait mu bàyyi ba série di tëgg muy tëgg même non koy réserver un an un an avant hmm. <laughs> du Sénégal wala du benn génne seen date déedéet waaw parce que dañoo gën a rëy làmmiñ rek gën a ŋaamu rek loolu la waay ah waaw mais loolu la rek mais amul leneen hmm. mais waali date mu jàpp yëpp ba ci Milano le 22 bii nii salle boobu mel num Youssou moo fa mës a tëgg ci ci bu dul loolu ay Alpha Blondy wala jamaïcain yi ñooñu mais salle boobu salle bu mag la boo xam ne dafa équipé am lépp ci biir sax dafa am sax hôtelu boppam salle bu mag a mag a ah, mag la boo xam ne nii bu ma tudd mu tudd woo. waaw oh. comprendre nga. est yàqu relation bi kon. non man yàqu ma relation am naa droit dem fu ma neex. ñu may baale Waly. noonu laay baale Momo Dieng noonu laay baalee Ibrahima mhm. noonu laay baale ay Thiat Seck ak ma Ndiaye. ñëpp artistes yëpp man fépp laay dem kenn mënu ma téye ma dem fenn waxoon naa leen ko nee naa leen man dem Guinée moo ma gënal dem Zénith. Ah. ànd ak Maria Sine dem Guinée ah. a ma gënal ànd ak keneen dem Zénith te bu leen fàtte ne Maria Sine ñu ngi ciy préparé bis euh, fële ca tournée européen euh, fële ca fële boobu ñenn ñi ngi jàpp ne waa le fait mu bàyyi ba Sidi di tëgg muy tëgg même non bul fàtte ne Europe du Sénégal Europe déjà seen dafa xat da koy réserver un an un an avant hmm. <laughs> du Sénégal wala du benn mais ñee ñoo seen date déedéet waaw parce que dañoo gën a rëy làmmiñ rek gën a ŋaamu rek loolu la rek ah waaw mais loolu la rek mais amul leneen hmm. mais Wally dat yi jàpp yëpp ba ci Milano le 22 bii nii boobu mel num Youssou Ndour moo fa mës a tëgg ci ci bu dul loolu ay Alpha Blondy wala jamaïcain yi ñooñu mais salle boobu salle bu mag la boo xam ne dafa équipé wu am lépp ci biir sax dafa am sax hôtel boppam salle bu mag a mag a mag la boo xam ne ni gisuguñu benn africain bu ndaw coow coow tëgg fa mais Sidi fi tëgg salle bu mag la Zénith six mille huit mais ku mënta feesal Sorano mënoo feesal feesal ne mais li ma sa jaaxal mooy five ma nga fees ba xam nga ne France du Sénégal five kenn ku mën a feesal fii ci réew mi muy Ibra Naajo moom laa gisoon bu ko doon feesal parce que yéen démb démb nee nañ da ngeen a fiasco am na benn influenceur bu ko wax nee na démb da ngeen a fiasco waxul fees dell xam nga ne table million cinq cent ku koy jaay waale balaa ko sekk rek moo ko mën a jaay mu jar un million cinq cent la ko jaayee entre vingt mille francs te loolu dafa yërëm jaam rek loolu moo tax Guinée ban fa demee ñu ngi doon jaayee foofu euh, table un million cinq cent. entrée bi gën a ndaw quarante cinq mille francs CFA la. te lépp a fees macha allah. Ah, mais Barthé li mu wax démb nee na fii fees dama fees kaw démb. <laughs> xam nga kooku góor jigéen la moo tax du ma bëgg di wax ak moom kooku góor jigéen la. kooku na dem wuti waykat bu fekkee dafa bëgg a ñëw buntu bi yaat na na ñëw. ah mooy dëgg waaw mais dëgg la wax. non non non nee na yow. nee na yow yow moom yow yow amoo amoo leen loo fi def. lenn loo fi pour bi am ko mosoo fa morso sax fobeerekaay moo la fi gën. waaw baax na. waaw xanaa xamoo ne nekk morso fobeerukaay balaa Ballago Seck moo gën nekk feneen leneen parce que mariage yi moo toll noonu mariage yi yaay jëriñu mooy contour mag fi la ñëpp di branché. seen patron ñoom sax ci contour mag ci Wally Ballago Seck lay lay lay xellee. parce que Sidi Biram Fall. seen patron laa la wax ñoom seen patron. Wally Ballago Seck moo koy branché barke Sidi Birame Fall dëgg rek laa lay wax. ma ne lu waral changement bi. wax mais dëgg laa am. Ah, pourquoi dara Wally woowu la ah langaamukat yi la woo ba pare nga nekk di kenn. waaw mais ñëw parce que moo yor mbir mi moom la ko yàlla suñu borom jox. nit ñi ni ko Omaro di waxee rek nit ñi dañoo bëgg a dund nit ñi dañoo bëgg a xàppi nit ñi dañoo bëgg baal baal bu neex. mais fi nekk xàpp doon tamit musique ba eh, neexoon na. changement bu gaaw bi lan moo fi lan moo fi am. Serigne Bada. musique bi neexoon na am eh, lu gaaw bi affaire bu gaaw bi nee moo ko moo changement bu gaaw bi quoi Bada. Mbaye mosuma changé man Maria Sine laa mosu bëgg sama xol dama doon naxante rek. jaay wa salaam <laughs> pour bokk waaw waaw jeex na